e Sénégal am na lu fi xew Yardım baylar. Eh, eh, waa daami nag naan di téye ma nga takk ay takk jàmm te di déglu sound tege te ah do mais genre nandite na nag ah tey moom dama yey woyal boo amee yett ju baax data koy woyay <laughs> daa bi ju baax data koy woyay <laughs> daa bi tey woye naa yaay tama yett keroog ba Rama Dia looy def nii. xolit yi laa koy jox. xoolal xal mi boo ko joxee xolit dama lay rek xal mi du lekk ndugg. rey dégg rek li ma la wax kii du lekk ndugg. lu tax lu lekk ndugg ma ne dañoo lekk ndugg laa wax. dafa gën ñu lekk ndugg moo leen gën fuuf. boo ko joxee ndugg bi ma rey la lu leer naa la wax. reyal dégg li ma la wax rek na daal xar du lekk ndugg. dinaa ko ko jox xanaa nga bëgg a topp doo xar mi ba tabaski jotee ngay doog a kii di nga da ngay jox ay. ndox mi muy naan ku ko root. ma ne sa maay fay robinet bi maa koy fay xar mi lekkul ndugg tey lekkul boo ko joxee ndugg bi ma rey la lu leer la xar mi moo mën a gënoon fuuf xanaa daam loo bëgg a dee xam na ma waaye yow nag daam it yow nandite na dama <laughs> ma waaw euh, xooyo ma méthode bi yan yi ma bi wax mooy xaye bi ci taw nii mooy boyam poye fii ku xees ki ku xees ki xaye bu mooy bi ah, eh, sama booyam waaw sama ah. mu ngi mu ngi mu ngi faïence paye yanet ah. waaw waaw booy bi waaw message am bu mujj bi lu mu wax mu ne waaw je veux qu'on arrête notre ay waaj tamba day naa ci jaabi tey nga ni. yow kay na ma nag. ba ci yaay yow kay waxuma non yu neex yi yamay jam. xam nga lu ma lay xamal. lan la xam nga lu ma lay xamal. luy jot na nag ba mu des dee yow yaay kan yaa sa xar mi. man maay yaay kan xam mooy ban. waaye yow dimbali ñu yaa xar mi dimbali ma yow. dimbali ñu may na ngay génne jaasi su ci dalee di nga xam ne maa bari mbokk. ma ne yaa sa ma ne man xam naa maa la faale. man maa la faale joxe xam mi dund bi ma rey la léegi. <laughs> xam nga lu waa armée di wax booy pour nga ci maafe bi. daamite yow yan moo tax yow tu n'es pas civilisé yan moo tax yaay woo. non dama lay wax ak tam mag di ko wax wax yi. non armée ñoom armée bu ñu waxee loolu. waaw yow woo daamite man waxuma wax ay mais dama ne xaye bu jigéen bi. <laughs> waaw da ngaa waaye tontaan nag yow it nag. waaw yow tam mag di tepp booy bu nekk faïence. waaw léegi kaay ma laaj benn affaire mu wax ko yu neex yi. dama laaj ben affaire waaw yaa lu ma la waxoon defe ko yow foot booy bi xam doo ko woon profil bi nii coupé quoi waaw diggante fii ak fii nga coupé foofu eh, des fois dama toy woon ay photo yoo xam damay tataw def nii des fois ma tëdd des fois position bu nekk dama koy photo en gisoo photo yi photo yaa ni tan kii taay fin la waaw umu kalsom bii taay fin la waaw léegi yow taay fin bii kii amul sax 15 kilos yu mat nga wan ko sa sa 70 kilos yi xaw ma sa 400 kilos yi da nga koy pàccal kooku loolu la xam moo tax mu ne je veux qu'on noo notre relation loolu lu muy teg mooy dafa bugg ngeen yemale fii yéen ñaar seen doxaanante. waxoo dëgg da ngay fen daan ko. ah waxoo dëgg waxoo dëgg waxu yooyu waxoo dëgg waxoo dëgg. message baa ngi ni yow biig ci guddi yan nga ma bindee bi may joxe ne envoyé ma message yan nga bind. li ma waxoon doogu laa ko envoyé. waaw waaw. yoo waxoon yoo yoo envoyé. ay jëtam moo yu moo këy ay yoo yu. moo ngi nii jëtam baa ngi nii. ah. dégg nga Ah, mooy waxaat Diop ma ngay coow ak sama yaay ndax xayma gis nga daami tey yenn naa xam gis nga bis bu Diop dooyee sama yaay ndax xayma. waaw dina xam man maay tax. xaaral ma wax la fan yii yaa ngi koy bugg a rey Diop day gis nga lu mu takk si baat bi boo ko reyee nag dañuy ñàkk. dama koy bàyyi mu yee sama yaay. ko teetaan mu yee sama yaay. ndànk rek ndànk du xam nga boo ko jox lu ma lay rey ba lay rey léegi la ma ne waaye dimbali ñu waay yow may ñu waay yow tayam set bagal bagal la jox dimbali ñu waay pap ay jóg dimbali ñu waay jóg daye daye daye la waay ni tayam set dama jam jam te sa papa yow jaasi nga muy bu max ni dafa dof ba di ko dóore xamoo ko dama dof na lekk ñu ko dox kay may kay may dal benn xale mi ngi ni papa kay may papa papa papa papa doucement dafa ndànk dafa ndànk. yow dimbali ma yow bëgg a rey xar mi. ah, ah xar mi moo la gën nday nday kenn ya. baay baay yu ñëpp. dégg naa ah, dégg naa mi ci mbéy waxal. sunu baay jee sunu baay ji. gisuñu lu ñu lay mën a weccee. yow mi gën ci man yow mi taaru ci ñun ak xar mi. waaw waaw xar mi baay booy. wayal seen way rek te bu leen si boole xar mi. Ah. boo bëggee jot suñu jikko baay tuddal xar bi du ko foowee du ko kafe Diop <laughs> suñu baay eh Diop ndeysaan xam nga ne bu tabaski jotee waaw ba ñu yenn xar bi ba ñëpp ñaanal. man xale yi rey. keroog ci noonu bii kenn du ko rey laa wax. Ah? bii kenn du ko rey. reer nañ koy rey ah bu tabaski jotee yaay bañ a reer di xar yi ah ku la tooñoon nan ko baa jaay borose sama jaasi bu ko jox sama jaasi bu ko jox jox ma sama jaasi bu ko jox jox ma sama jaasi nañ ko borose da nga am ay yab baay bu jox ma sama jaasi boo yor gànnaay da nga am ay yab tan déglu ma ñu borose xar mi nee ñu ba recette xar mi. yaay booy yab ko. ñu ba recette xar mi. yaay booy yab ko. dama ne dina jënd moutarde su ko defee marine ko ba mu safa sax dama ne ji moom baax eh, mara ay yee ñëw leen dof na nag rek. la Diop yaay booy yab ko dinaa ko ram man yaay booy yab ko fàllare ji dama ne nag dinaa ko supp su ko a defee ne nag ma daal côtelette yi marine ko tey ba mu neex eh ma ko yaay booy yab ko dinaa la rab yow yaay booy yab ko dama ne daal o oh, ala yow xar mi dinaa ko laal kii maa koy marine ba mu neex eh, Sénégal am na lu fi xew xam naa ne da ngeen am melokaan. na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo la bëgg a ne fu ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man doo ma indi problème. lii yëpp yaa sa bopp ay xar les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner. les dof de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu jëm ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7. ñàkk jox cër ba yow respecté wu surtout yéen aawo yi yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaske benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa teg lii. waaw. bu ma jëkkati nga ni mu waxee. waaw loolu nel kuy. ak poobar man du ma si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga rey ko saraxa ko wala nga maye ko xool noo def ak moom man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu ay wax yow yow yow lay kii tëbel nga dugal dugal dugal dugal papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara tabaski ci fajar laa ko jël incha allah <laughs> naa la ko indil ba ca kër ga naa la ko ba ca kër ga jërëjëf ni ah, da ngaa amum xar pour bëgg xar mi tëbu waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko ah, waaw loolu kay yow kay xewal la yow sama papa tëbukat bu mag baa ngi nii xanaa déglu ko Père Ndiaye le grand tëbukat <laughs> des xar aka ay si loolu yéen da ngaa bëgg a affaire su mee ko torop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis nga am naa karaw <laughs> xoolal xar mi lu mu toll ah. tons xar bi maa ngi koy xont li may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek. xar bi day tëb rek. tëb mooy lan xamoo luy tëb. ala gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la ilaha illallah. ni ngay gi dama gënal ma xar baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di reeku laan la xar mi dafa corona nga sa loxo nga may def ni di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir e blanc xoolal déet déet Cheikh léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax moom lu ma ciy wax ak moom moom ndigal lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw. per bay bi laay bañ a dégg ci kër gi bu ñu wax wax du bëy. waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaskee bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw. neel waaw yar réew waay. comme maa ngi ndax sama bopp rajo noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa. lii lan la ah léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na. Eh, Tange yaa ngi ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo koy de. per gu xar tas na këram. per gu xar tas na këram. Eh, per gu na këram. per gu na këram. xippileel seen bët yi xool. fan lay xewee Sénégal set.